Kol bagi toy mudak di joy Sokolaje muna mom la bagay Sunyo ko andilul mom dudun de bane Tak dafa kham ki mudo jimom Yana sayi muto dilate Fan lai muje Kol bagi toy mudak di joy Sokolaje muna mom la bagay Sunyo ko andilul mom dudun de bane dafa xam kii wax nga ma si li nekkoon mais li ma jaaxal sa diggante ak sama dengan teh elas. waaw. comme lan. gis na ne yang ngi wal ba def ko si ngoom di ko yooyu ba taf ko si mairie te terewul da lay gën a nopp di la di dem wax ma lan nga ko ñamal ba mënu laa ah. la rek nee la benn bu ma def lu ma metti fukk koy fay. waa des fois dama wal ko ba mu mokk laaxatu jooy pourtant dama ko nob de. Hmm. Hmm. waay waay da Sénégal dëmmante gi fi am moo gën a garaaw sax ñaar dëmm yu nga wax loolu. dafa am ñaari gel yoo xam ne benn gel bi day am ku mu muy bëgganteel koo xam ne mi ngi réew mais ñoom ñaar dañoo bëggante mais kenn gi day teg bët kooku noonu moom rek lay bàyyi xel da koo bëgg te ñoom ñaar dañuy wootante ay doomu ndey te gëmuñu sax li ñuy wax. nga ne dee waxul loolu da nga fit wah baax na nañ dem ba si kanam da ngeen wax rek génn ci li nga ne mais mas mais suñu ginnaaw fet bi nan la demee noonu ci gàlle bi tey laa leen wax booy lu neex buy kër gi maa ko def ko film boo xam dafa am fil de conduite am suspense boo xam ne da nga di rii booy acteur principal laa la wax de acteur principal hélas xam ngeen ko moo bëgg benn gel boo xam ni moom day xool gel bi di jooy hélas day déggante gel bi di jooy <laughs> du gis gel bi di jooy. bari na rangañ de. rab day def loolu. dëgg la waaw. rab la de <laughs> te li gën a garaaw. Mhm. beneen kër moo am benn waaju gàtt ñaaw ñuul soof waaju réew. mais du ko napp quoi saa yu xaalis bu mu waaju nangu man demoon naa sa ba bëgg a xeex waa mais jour 31 décembre <laughs> ñaari ñaari waay yëpp laa tawal ñaari grand yi ñëpp laa fëxal bu ndikkee di ma laaj naa ma ana guerrier la man leen ñoom ña nga jam ñaajo ña nga croisement Cambérène yow xool fu am lumière rek dem leen fo loolu sama maa def lool man saytaan la. lu ñu ci yow. forma fenn forma fenn mais. Mm-hmm. waxuma loolu yéen man lan moo jot a jaar sama ginnaaw da ngeen fi nekkee léegi nii ci laal <laughs> nga point bu ma neex. ndeysaan. <laughs> Maas. yow hmm? xam nga ma Maas. xam nga ne yow man ginax la dama ak fu ne lay jaar aw mais loolu neexul de. <laughs> benn waay daal moo ñëw di sees si xaw ma kan ci gàlle bi saa waay ma koy jéem iri muy am lu muy teg. maas loolu neexul de li gën a neex mooy maas gis nga feet gi ay birig laa doon laal. te yow bokku yii mi bojo bojo yii mi gars yi bul dugg car bul dugg ay ay ay ay taxi duggal Tata. damaa damaa bul dugg Tata duggal Jakarta yow nag. maa rek. waxal rek en tout cas gàlle bi na jër te li ma fi gis nii mënu seet te xam naa si la paix moom mënu fee am te mo moom mun antal ma sax mun dama ko sax faf munul jàmm loy dox jàmm mo ko fi de lu fi waxee indi mu intéressé ma na ko ko ndey son ama ci sax sentiment xaaral man yéen ñaar man da ngeen ma neex tay nak ma ngi soog film nak ma ngi soog nik nekk yi l'aise yéen lay wër xoolal naan leen eh, dedet hmm? yow nak sa fet noo doxale doxalee waxoo ñu de Mam. Waaw. man ay pétale laa doon daal. pétale. mais am 12 ans. génn ci li nga nekk nag. ñàkk nga fayal trop mu naan pétale. indi waaw indi la yow. yow kii mi ngi merdi. comme que yow bëggoo jàmm yow. yow it moom janax nga. na ku nekk jël sa yoon bopp dégg gars dañuy bandi bandi lu mais duñu bandi yow mi yaay bandi bi. kan non apa yow no xamee loolu booy bu ku ma la ko yow man bandi la waxal waay da nga Non, nax rek. yow bandi nga kay yow boo xoolee sa déguisement bi sax xam nga yow bandi nga yow. ci mais yow xaaral yow nante nga yow man du ma romb kenn naam ay bandi nga ak yooyu mel num ne may maas yow bandi nga booy kon man bandi laa ni ya sama tànk ak njàngal ak yooyu. kay mas. temps sa gàlle laa bëgg a dugg gis nga lëz moom laa bëgg a kepp lëz lëz booy nag kuy ma fekkee wàllum looloo tax nga am ay bandi ngaak ay yow ay saa yi sa comportement booy duma bandi foofu moom génn fi ba mu set wecc eh yaay ki may jàppale non mun naa la jàppale sax mais figurant ma laa fay duma am dialogue du ma am rôle lu leer laa wax nag figurant nag ma laa fay doon. mais di ma jàppale rek. non naa jàppale te ko soog. wuy gis nga yow jour boobu noonu da ngaa wàcc rek booy bi ñëw ndekete booy bi xoolal ci ginnaaw la nekkoon dafa wiir woon toog demul woon fenn dañ laa wur bu sonn xoolal mun ñu laa gis. boobu dafa jooy ba lexi xol toon nii. Mass ka ngay bàyyi fenn Mass yow doo xalaat da ngay am suba nekk muskalaaf ay fenn. yow pourtant nag gel bi yow rek la bëgg te yow xoolal jantal bool nga quoi xoolal damaa ju xoolal jantal grand nga quoi yow c'est que yow xoolal nante nga li dong mu neex si yow bàyyi détails yi tamit nag foofu waay. ma xam ne laa bëgg. lan. non wuy ma sa affaire maye nangu yooyu booy nga xam ay doomu jaan mat la day jur ay doomu jaan. damay fo rek. sama la. mais laa taale pétale faam. dégg kon nag may fayagul. maa ko faam. yow yaay tàppet. <laughs> yow nekkal foofu rek di wax booy gis nga kii ah ay jaasee ki lanse rek paaka lay lay doxantoo. mais bu fekkee noonu yorul woon dara ma koy ñuus ba mu dugg faale ma ko sax toogal foofu di fen rek. yow lan ngay def ma dalal ba pare. ma dalal la pour lan. parce que yow laa seet si woon. gis nga dafa mel ni yow laajte wu ma. di nga sooma laajte woon kon di nga xam sa yi ngay du man maay ki ciy tàbbi il faut nak nga dem nga renseigné bu baax man la kan nga sa yi ngeen nekk ak dëmmante bi xew man noo ma nekkuma ci lu leer nag laa la wax. gis nga yow ku ñàkk sens ka gis nga ku ndeyam liggéey dëgg dëgg bu gisee ku mel ni man da ciy përëfutoo Hei, eh, li ngaa foto cuma, mau moo ya? Iya, boleh yeex bëri na waaye gis nga ku ci anam bii lay taxawee di wax ak man gis nga ku du mel melakan bu bon wii Melakan bu salte bi ngeen nekkee lu tuuti nag te bariwul mooy ci biti génn sama kër ah, bu ma la jiitu mais fël yaa génn waaye fan lay mujjee elage booy topp toppal ki la bëgg bëgg te booy bëgg bëggal ki la bëgg gis na ki nga bëgg jóge na fi si suba mi ngi si yeneen loxo yu góor El boo ma nangulee la lu kenn mës wiiri wiiri jaari ndaare gis nga dof soo ko bëggee faj foo dof ni moom. dafa xam ki mu doon ci moom yenn saa yi mu toog di laajte fan lay mujjee